Euh, mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Taïba Niassène euh, tant baa ngi nii moom lañ programme ak jumaa ji tant bi moo nekk nii pour ngoon jotee incha allah ci lañuy programme bi commencé cérémonie officielle bi waaw ak ak conférence yi ba guddi jotee incha allah gàmm ko ci lay am waaw fii lañ nar a defee li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi ak euh, gàmm gi ñu ñaa ngi ci préparation bi organisation organisateur yi ñu ngi nekk ci organisation bi ñu ngi installé yi waaw ñi ngi bale ñaaw ñëpp a ngi ci képp lépp loo xam ne war na ci rek ñu ngi koy def incha allah di programme eh, euh, bés bu mag bi nga xam ne ci lañ nekk nii lépp lu ci war a am rek incha allah ñu def ko waaw ñu ngi nii ci tante ron tante bi tee bañ seen gis nga macha allah tante bi nu mu yanjee macha allah tante baa ngi nii ñu yanjee incha allah tribune baa ngi nii si ci nit ñaa ngi nii ci rangé di defar bismillah góor gi waaw góor gi nag moom lañ fekk fii ci néeg bi nga xam ne ni mooy nekk maam jànq wala néeg maam abdoulaye ñu wax ko bu présenté wu mooy kan ak moom lan la fi euh, taxawaayam fii. asalaamaaleykum wa maa ngi lay fay bu baax yoo xam ne nii bi man sama papa moo fi ne woon léegi bi sama papa jugee fi mu tegoon tànkam fi laa teg sama tànk wax dëgg nii bi laa amee di koy toppatoo di ci def li war yëpp maa ngi ko fi def ndax ne bi heure bu ne bëgguma mu tilim bëgguma daal mu kii bu ne ñu ngi ci déggoo taaral nii bi daal ci lañ ci lañ loolu moo fi seen taxawaay fii ci kër gi kër gi nag li ëtt bi ak wane yi yëpp ñu ngi koy toppatoo dañ ko war a toppatooye moo tax ñu toog ndax su loolu suñ papa ne ci la ñu yar léegi nag suñ papa bi mu fii ne moom war dalee fii ci buntu kër gi di koy sàkket ba mu def benn buntu am na benn at sax sàkketu juróomi laa man si laa jàngee sàkket ñu ngi koy sàkket juróomi la la mu dimay wan niñ koy sàkketee ñuy dax li ñu baaw yeexu moom lañ sàkketee këj gaatam ñu ngi ko sàkketee bañ paree mu wan ma ko si ko mane ba fu mu ne ma bu ma laa woon sàkkete naa ko ndax loolu sama papa moo ko jànguloon biñ paree it ma nekk ak ci kër gi mu dimay wan jaar-jaar yi ci kër gi yëpp ak li war ci kër gi yëpp mu wan ma ko ganaw bi mu fi jógee na bi mu fàddoo Alaaji Ablaay ne ma léegi sa bay doon na la woon li ni mu doxalee kër gi ma ne ko waaw mu ne ma léegi nag ni mu la ko joxe woon joxoon joxe naa la ko léegi ni nga ko toppatoo comme na nga ko sa kii toppatoo yi léegi nag biñ pare nag sama bay am na fi loo xam ne grade la ndax grade lu jafe la muy carte bii baay moo ko bind ci loxoom bi ko baay bindee ci loxoom boo xoolee fii ci gannaaw it adresse am moo ci ne mooy kay dim daa bindee lettre mooy lettre bi mu ko bindoon mi ngi nii bii nag mooy bi mu ko mujj bind ndax bii nii boo rek mu bind ko beneen lettre bi taw bi dikkee ci la lettre boobu suux bi mu suuxee nag mu fekk boobu bii mu ko def ci poosam léegi nag man maa ko jël kii ko ba nga xam ne ndox mënu ci dara waaw léegi nag moo waral fu mu ne nii kër gi ñu nit ñi taxaw taxawaay bu njëkk ndax néew bi daal ñu ngi koy taaral dëkk ci loolu si lañ dëkk daa iman dape mooy dimas bu jot dañ xëy fii suba ba ay 9 heures ñu soog a bu xewee ko am na ñu ma ak xale yu jigéen ñu ma àndat yoo xam ne ki may njëkk tudd na mooy Daoud Asiñang ak astrines ñooñu ñoom fu mu ne taxaw nañ taxawaay boo xam ne man loolu maa ngi si doole gërëm di leen ñaanal yàlla kon gudd ak wér képp koo xam ne na ñëw ni si gàmm gi yàlla na la yàlla indi si jàmm delloo la si jàmm loolu heure bu ne biñ jullee ñu ngi koy ñaan heure bu ne it bu ma ñëwee fii tàkkusaan ba bu ñu dolli timis ñaari dinaa fi ne su ma fi ne loolu laay ñaan képp ku fi ñëw daal ñëw pour siyaare ñëw biir gàmm gi yal na yàlla indi ci jàmm delloo la ci jàmm yàlla musal ñu seytaan yi ak kii yëpp yàqu-yàqu yi yëpp ndax accident yi bari nañ waaye nag yàlla nañ ci yàlla musal képp koy xam ne daal taalibe bàyyi la yàlla na la yàlla musal ci accident yooyu jóg nañ jëm ci bàyyi liñ jëmee ci bàyyi yal nañ ko ñibbee ci bàyyi asalaamaaleykum wa rahmatullah man sama papa dégg man nag sama bopp mbay xarit jaam lañ ma wax waaw man mbay xarit jaam lañ ma wax sama yaay nag santu jaam Abibu Ñas moo ko jur Abibu Ñas nag ñett la waaye sama yaay maam xarit jaam yaay ma Alaaji lañ ko tuddee yaay ma Alaaji Abdoulaye lañ ko tuddee moo tax ñaa xarit jaam waaye sama yaay ñes la sant ndax Abibu Ñas mooy bayam Abibu bu dëkk Rabibu ndax moo ko njëkk bay mooy njëkk bayal baay tool at moomu sax bi ko béyee na na ata njëkk mi ngi na ma ñetti tenteng la am ma di koy ree na ko am maam sët ba ma ne ko amaam ñetti tenteng du dara di munu ma mooy saako yooyu ñuy wax saakoy poobar booba ñun xamuñ saako si jamono boobu xamuñ saako booba ñoom boo amee saako yooyu rek wax na ñetti tenteng <coughs> la ma ne ko waaw munu ma loolu la ma ko ban loolu moo kon mooy mbaam ak saako munu ma ah fu ne de man nga ko wax ndax mu ne xam ngeen saako waaye ñun jamono boobu tenteng lañ daa wax ma ne ko waaw mu ne ba mu bayee yóbbu ko sa baay ba mu egg baay daf na ko dellool gerte gi garab yi bu soo demee nga xolli ko mu ne ba mu ko xollee mu ne ko bayaat ko mu dellu ko bayaat muy ñaari tool boo demee atam bi bayaas dikkee garab yi bu na ko tool ba mu dikkee bii tool ma ko kër alipaati yoonu kër alipaati bii mu ngi ci yoonu kër ba ñaari tool yooyu la na ko man maa ko goral sama bopp jël ko jox naa la ko ndax bii ci laa njëkk bayal sa bay ñaareel bi mooy bii waaw loolu loolu moom danañ ko ci boole waaw man mbay xarit Caam laa tudd sama bay Ousmane Fatick côté la tudd sama bay nag ak bajeen binam ñoo bokk benn ndey ak bay ñuy bay Omar Fati Diallo amee woon waaw di yaay Seexu binam mook sama bay nag ñoo bokk benn benn ndey ak benn bay waaw jërëjëf ki nga doon dégg mooy ku ñu wax Mbaye Khady Thiam Pape Mbaye Khady Thiam moo nekk fii ci barabu Cheikh Ibrahima ñu tudd Delaon fii euh, kër Maalaye ci néegam bi lañ nekk fii euh, lañ nekk fii moom moo yor bërëb euh, toppatoo yooyu yëpp ñu ñaa ci jaare nii waaw ñu topp ba tey ci Uras Info baax na jërëjëf jëf ñu jëlaat yeneen ay témoignage incha allah. as jànk bii mooy fee mooy guy baay baay fa la bee moo nekk ma Abdoulaye Niass léegi Mass Jàng fonk na néeg bi bu fonkay ba xamante ne bu dégg waar ndax ku ñëw fii da nga ànd dal teewlu waaw ànd dal ànd ak waaw ñaan say soxla faj yàlla faj aajo yi waaw fii nag léegi mooy guy baay bi da nga ci jógee ne ma ah, mab la ñes guy baay nga la dem ziyaare ñaana ñaana ñëpp jàmm ku fi ñëw nag na nga ànd ak dal ànd ak teew mbokk taale bi ñu bàyyi ko fu ci biir réew mi ci bitim réew yëpp ñu ngi ñëw ci jàmm sëñ bi ku fi ñëw na nga ànd ak dal teewlu ànd ak yar waaw. man maa Baye Gallo dëkk si jam ñaajo jam ñaajo laa dëkk di fi ñëw na liggéeyal Baye yàgg naa liggéeyal Baye nag def 2015 si si nekk jëkk naa nekk Baye liggéeyal bu Baye far dem si liggéeyal xikma Maolana Cheikh Ibrahima taal ventilo ak ak ak ba lamp yi lamp yi waaw ñu wóolu ma des si mbale bi des si mbale bi su ñëwee nag Lumajak ya, jek dem dama jëm jënd balé jënd pel mo balé bim mu set waaw ni organiser gan yi rañé ma xino rañé ma xino waaw ñi ñi gëram ñëpp nak ñi gëram ñëpp ñi ñana yalla ya baax di siaré nak sinbi, bi yalla mu ñëw si jàmm yàlla ñëw si jàmm fekk si jàmm ñibbi jàmm fekk si jàmm ñu ñaanal taalibe ñu ñëw si jàmm fekk ñibbi si jamm ñi ñana waa waa radio bi yalla yalla defal leen jamm yalla yalla defal leen jamm assalam ma leen télé ak rajo télévision bu mag bu barke baay ñu ñaanal ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah Uras Info ñu ngi fi ci barab bi nga xam ne ni fii la gane woon àdduna fii la gane woon àdduna muy makkaat bi nga xam ne ni fii la solewoon aju boobu fii la guy gu nekkoon léegi guy gi nekkatu fi léegi ah, dañ ko defar ni comme ni nga ko defaree nii fii la guy gu ah, bañ ko defar nag sëñ bi def ne gannaaw fii la guy gu nekkoon buñ ko tabax mu mu mu fermé wu moo tax ñu defal ko benn trou boo xam ne ci kaw la muy génn la ci kaw ngeen gis ah, fii mooy barab bi nga xam ne ni fii la gane woon àdduna moom Cheikh Al Islam Eh, El Hadj Ibrahima Niass fi la makan bu mu tëggalee nu àdduna fii la guy ga nekkoon gis ngeen ni ñang koy ziarra gis ngeen ko ni ni ñang ngi koy ziara xonk bu baax. ni ñang ngi di ziarra barab bi nga xam ne fii la Cheikh Ibrahima Niass gënoon àdduna fii la guy gi nekkoon fii ah, la guy gi nekkoon guy gi nga xam ne moom la ñu wax ne fii la Mawlana Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu gënoon àdduna guy gaay fii ma fii makkaan bi fii la guy gi nekkoon gis ne ni ñu ko defaree léegi a guy gi nekkatu fi ñu leen ko defaree léegi waaw